ay ati ati at coow ak wax ju bari di daal di topp lépp lu soxal yoon ak yoonal fii ci Sénégal daal di ji andi ay saafara nag mënees naa nekk ci kaw ñu daal di wàccoog ak tëralin yu yees. assises yu bëri nag souvent day nekk ay conclusions yu ñuy dugal ci tiroir rangé loolu moom doxalu état te Sénégal dund na ko dundaat ko euh, conclusion yu rafet euh, rapport yi rafet euh, am idée yu baax mais après. boo xoolee ñi nga xam ne corps appliqué bu leen arrangé lu souvent dañ koy dugalaat ci tiroir rangé loolu yaakaar naa euh, day nekk yaa xam xaalis rek. ñàkkum leeral mbir yu bari nag moo waral jiixi jaaxa di am ba ci ñi gën a nekk ay kàngam. gis nañu question de minorité gis nañu fi question de terrorisme gis nañu fi délit de diffamation gis nañu fi euh, offense au chef de l'État ak euh, gis nañu fi atteinte aux institutions day nekk ay infractions yu yaatu yoo xam ne pratiquement. ku nekk mën nga dugg ci biir mën nga xëy rek sax dugg ci biir te yow même doo ko bëgg. loole nag mënees naa nekk ca kaw ñu wàccoog li ni mel. ñu concrétiser xalaat yooyu nga xam ne dina ci génne bu yàlla dogalee ñu génn ci. ñu xoolaat organes yi ñi nga xam ne ñooy rendre justice naka lañ leen organisé ba ñu nekk ay hommes yoo xam ne dinañu am benn indépendance wala li ñuy def. dana nekk loo xam ne méngoo nag li ñuy xaar ci ñoom. daal di organiser mbir yi nag faaw mu daal di door ci bànqaas yi nga xamante ni nag ñoom lañ ci gën a joxoñ baaraamu tuuma. bokk na ci droit pénal procédure pénale bokk na ci droit électoral ak euh, dans une certaine mesure droit constitutionnel fonctionnement conseil constitutionnel ak euh, vraiment mesures yi muy jël ak yooyu yooyu mooy li nga xam ne pratiquement sénégalais yi peut-être euh, dans une certaine mesure droit foncier mën nañ ko wax xëy na secteur yëpp war nañ ko xool. soxal nañu wootee waxtaan nag maanaam invitation bi bile docteur xam-xamam màcc ci wàllum droit public jàpp na ni dañ ko waroon a gën a yaatal.